waaye Lougaloo ñëw na Alpha ñëw na waaye attention Daaru Saam at taqwa mu laay ñëw na mën nañoo jël baax de tàmp ko comme favori parce que bii passé moom moo jël deuxième jamono jëloon première mais jamono ñëwul comme jamono ñëwul nag dañuy jël baax de ñu ji ñu tàmp ko comme favori baax de boo écrit lamba faar amul tour mi ngi ci biir groupe bi aw sayer dengan tanor mi ci groupe bi nabu Salam Fall minci guru ci groupe bi malin minci guru ci groupe bi yesal minci guru bi 2200 mètres la daw gaa bi leg mu jekk Babacar Mar maa ngi di jali jigéen ju baax jooju di Fatou Abdou Ndiaye jigéen ju baax jooju nga xamante ni di liggéey liggéey bu am solo bërki dafa ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ay mbokkam di ko jaale waa Jolof di ko jaale waa Sen TV moom Fatou Abdou Ndiaye ku baax la ku mën a def lu baax la ku mën nitam la kon lii bu dalee ci kawam ci sunu kaw la dal ñun ñëpp Fatou Abdou yi ñu ngi lay jaale di ko ñaanal yàlla sarak jooju yàlla na yàlla xare ko àjjana Babacar Ma jikko jëy leen raw gars yi jug nañu groupe 2 bi jug nañu ki nga xamante ni mooy Cheikh Wade kan moo génnagul. jërëjëf Baye Cheikh. groupe 2 bi jóg nañu mu nekk 16 partants mu nekk 15 partants sur une distance 2200 mètres ki nga xamante ni si moo génn moo di la numéro 11 di Alpha Ndiaye ki nga xam ne moo ko war moo di Momar Dieye waaye maa ngi seen le numéro 10 di Omar Ba mu ne en deuxième position. Kota Pexa dafa reetaan sax Caravage lu mu nar tey. dafa xam ni fas yi ni na état moom namoon na course te am na lu mu bëgg a wane ci fas yi waaye Omar Ba woo. Eh, birno yi dafa fees dell. dafa teel a mooy capitaine bi di numéro 10 bi di Omar Ba Junior nduru turandoom dollu turandoom moom Omar Ba. jërëjëf kookoy Omar Ba nekk deuxième position Alpha Ndiaye li mu leen jox na bari na. waaye Alpha Ndiaye ngi noonu moo nekk première position jox leen longueur bu jaarootul waaye maa ngi seen ki ne moo di taxawaa ñu dawal ka xel yu bëri waaye maa ngi seen ki ne moo di. mu laay mu ngi noonu ndeysaan taxawee quatrième position waaw taxawaaw te naa te naa dëggal boppam Baye Cheikh. Alpha Ndiaye day dalal xelam mais xam na ni gars yi duñ ko bàyyi ci li mu indi. du distance bi mu joxe xam na ni gars yi duñ ko ci bàyyi taxawaa daa teel a dëggal boppam ki nga xamante ni mooy Amar Baaw tax te teel a dëggal boppam mais nañ bàyyi xel baax de. nañ bàyyi xel baax de waaye Lawraado génn na gaa yaa ngi noonu ndeysaan def benn peloton di ñëw ñu ngi noonu ci 200 mètres bi di ñëw bu ñëwee dañuy waaye ki nga xamante ni moo génn. loolu nga xam ne moo génn moo di Laurado je pense waaye gars yaa ngi noonu si tournal 200 mètres bi di ñëw Baye Cheikh bu ñëwee dañuy dellu ndox 2200 mètres la ñuy jaw Baye Cheikh. baax dëgg mi ngi ci arras bi baax dëgg nga ci arras bi gis naa Darou Sam gis naa Darou Sam oh. ndeysaan déggal loolu. ndeysaan amul tur a ngi noonu ndeysaan ànd ak ki nga moo di dañuy njëkkante aras bi dañuy njëkkante aras bi péage bi la ñuy njëkkante pour njëkk a fay rapido bi pour njëkk a jaar bi pour gën a mën a teel a dem dëggal loolu Baye Cheikh Mbaye waaye ba tey ki nga xam ne moo génn moo di Alpha Ndiaye maa ngi seen ki nga ne moo di taquwaa ñu dawal ko mu ne en deuxième position baax de nee na maa ngi wuti ci dépense ku demul maa ngi dem waaye dawal nañu lawraado mu taw xel yu bëri ndeysaan dal ci ki nga moo di Alpha Ndiaye maa ngi seen ki nga xamante ne moo di Omar Baaw ba léegi mi ngi noonu dawal nañ ko xel yu bëri maa ngi seen Daaru Saam ñi dawal ko xel yu bëri gaa yëpp dawal nañ leen kosam waaye ki nga xam ne moo génn ba léegi moo di Alpha Ndiaye deuxième position nekk ki nga ne moo di lawraado lawraado jàpp na ki nga xam ne moo di Alpha Ndiaye gis ngeen xel lawraado di daw daw na xel yu rëy baay ngi daw xel ndax baax de lim jàpp bàyyi ko ko sa peex. bàyyi ko bàyyi seex peex ba Laurado génn na en deuxième position euh, baax de en troisième position ak Alpha Ndiaye Seck. jërëjëf Laurado mi ngi noonu ndeysaan di ñëw di tekki si bu ñëwee dañuy téye ndeysaan première position ki fa taxawee moo di ki moo di Laurado deuxième position maa ngi seen baax de waaye troisième position maa ngi koy seen ñi nga xamante ne si moo di Awa Seer waaye ki nga moo génn ba léegi moo di Laurado Laurado première Laurado deuxième nekk ki nga xamante ni moo di le numéro 7 di baax 2 troisième nekk Alpha Ndiaye quatrième nekk ki nga ne moo di Lugalo. xam nga lu tax mu mën leen raw parce que Laurado zokk bi da leen woo ci APS.

ba seen dimanche incha allah ak seen émission jaabal sur la télévision Sen TV Babacar Mar jërë ngeen jëf.